nga dogu nag jëm ci yàlla yii teq nit ba du jëm ci yàlla dafa bari yooyu yëpp wane nga ne te mooy li ci jiitu mooy bëgg-bëgg nga am beneen bëgg-bëgg bu dul yàlla léegi nag iraada bi nameel nga namm ci yàlla nammatoo leneen ndax boo nammee leneen rek wàññiku nga yoon wi nga jaaroon di jëm feneen li tax nag dëgg euh, nammeel gi dëggu ci yow ba nga xam ne yow murid nga moo di bàyyi nga àdduna bàyyi nga lépp lu si jëm adduna mat na xam ndax buñ nee bàyyi adduna rek ko dégg da ngay defe ne da ngay li ci adduna lépp ba dootoo doon dootoo ci jëfandikoo dara du noonu bàyyi mooy bàyyi bànneex boo xam ne sa bànneex bakkan rek la nga ciy jëriñ nga jëfandikoo ko ngir njëriñ loole ngir yàlla ndax li ko lislaam digle lépp lu ciy lor nga wattandiku ko ndax bu fekkente ne adduna nekk na ci lekk nekk ci naan nekk ci sol yére nekk ci jëflanteeg nit ñi lekk waxtu woo xamee ne suur nga suur bu yem li ngay lekk lu mu neex neex nga xam ne li ci doon farat li nga xam ne moo leen dundal te du la lor jot nga ko ci boo continué beneen tib tib ba ca des àdduna la naka noonu nelaw boo nelawee li nga xam ne doy na liggéey yi war a tegu nga nga ne ah damay nelaw ba waxtu sàngam te loola loo xam ne lu lu war ci sa yaram la la ca tegu lépp àdduna la naka waxtaan boo dee wax ba wax li nga xam ne mooy farata yi nga xam ne lu war la li ci def nga xam ne ay caaxaan bànneex waxtaan ree àdduna la moo tax sëñ Tuubaa am na ñeenti ponk àdduna bëgg àll bëgg waxtaan bëgg nelaw awalul kaa badal manaw badal euh, kon axaral maanaam ñeenti kii la daal yoo xam ne loolu ci bëgg bëgg boo xam ne la la cay nécessité weesu nga ko rek ba xam ne la ci def luxe la rek ak adduna dugg si na ndax àdduna mënee su ko bàyyi ndax ci lañ war a wutee àllaaxira ci lañ war a wutee yàlla waaye li nga ci xam ne dana dana la dimbali ci jaamu yàlla moom la farata la li nga ci xam ne dana la dimbali ci nga mën a dimbali say mbokki jullit loola dootu àdduna du àdduna lii àdduna daal mooy loo xam ne lii buukare la ku la xam ne rafet nga li nga sol wala am nga dëkkuwaay bu jéggi bu mucc ay bu rafet bu ñuy soow wala am nga oto bu ñuy soow lépp loo ci xam ne lii àgg na foofu rek moom la ñu tuddee àdduna kon li nga xam ne lépp da nga ko bëgg na ngir lépp loo xam ne da nga ko bëgg ngir yàlla rek bokkul ci àdduna loo tax sëñ Tuubaa ne axaltu min duniyaahu zaadi lil jinaan àdduna ji fab naa ci li may yóbbuloo ba àjjana rek li ma ci yóbbuloo ba àjjana dong loola laa ci jël loola nag moo dul àdduna li ci des lépp kon àdduna la léegi nag bàyyi àdduna bi moo di da jiital sa àllaaxira teg ci sa àdduna nga fas yéene yiwal jubal sa adduna def ko ba mu rafet ngir namm àllaaxira jullit bi nga xam ne dafay dajale alal ngir bëgg koo fàggoo xew-xewi adduna ba du dem fi kenn du am soxla taxaw fi kenn di ko torax loolu wala di ko fenal wala nga di ko laaj mu mu di la doyadil te ngay jullit jullit warul la doyadi ci boppam ci kanam dara dul ngir yàlla loola jullit ba nga xam ne dafay denc alal ngir loolu loola yoon rafetlu na ko jullit bi nga xam ne dafa bëgg a doyloo li mu am ba du laaji kenn yoon rafetlu na ko jullit bi nga xam ne dafa bëgg am lu bari ngir mu mën cee liggéey mu mën cee jaamu yàlla moo xam ne day dimbali ñu lot moo xam day joxe addiya moo xam day sarxe moo xam day mën a doxi loo xam ne lii day dig day yiwanal ay diggante yu yàqu loolu lépp dara du ci adul lépp jaamu yàlla la kon murit bi nga xam ne murit la moom xam ne na ne yàlla rek ko soxal yéen ñi def yëpp mën na koo def waaye kenn mel ga lay wuutee li nga ci jublu li nga ci jublu waxoon nañ ko barki démb rek ne lekk sax booy ci jubloo ngir yàlla ndax jëmm ji nga xam ne moomuloo ko yàlla dafa la koo dénk te da di lay wax ëllëg nga bañ koo lor ba lekk ngir it am kàttanu jaamu yàlla jaamu yàlla la yaa ngi mel ne kii julli kon yooyu yëpp murid bi day gannaaw pour mu wàcc àdduna ba noppi te du ko wàññi dara ci mbirum àdduna du ko wàññi dara ci àllaaxira day jiital yéene ju rafet te mooy lépp lu muy def def yàlla te wattandiku loo xam ne maanaam lu luxe daal maanaam loo xam ne ëpp na fa mu ko la cay la cay jariñ maanaam ngir puukare wala ngir leneen lu mu doon bu fekkente ne nag nit ki li nga xam ne mooy may doole seytaane te mooy bakkan ndax ñett ñi ñoom la war a bëreel seytaane ak bànneex ak bakkan ak àdduna seytaane li nga koy noté mooy turu yàlla bu bari ak fàttaliku dee yonente bi sallallahu alayhi buñ ma saan tëgg nit day laaj na mu mel ci fàttaliku dee buñ ko nekk koy faral di fàttaliku la mu ne ah waa jàngoo buñ ko ne ah du ko faral di fàttaliku rek mu ne kooku de fa ngeen ko kon ki nga xam ne dafa wax ne muridullahi la dafa nam ci yàlla dafay fàtt faral fàttaliku de day bareel ci làmmiñam turu yàlla fu mu fekkee lu ñaaw daf koy defar adduna du ko tax du ko yóbbaale dara diineem day tax mu bàyyi lu mu bëgg taxit mu def loo xam ne dafa not bakkanam neexu ko da nga muñ ko la saaga danga nga muñ ku la waxal loo xam ne defuloo ko tamuy lu ñaaw da nga fekk diggante bu nar a yàqu nga defar ko da nga fekk loo xam ne lii amee nga ko man koo jëfandikoo nit gën la koo aajowoo nga jox ko ko ngir yàlla yooyu koy tax ab ma yërmande yooyu sàrt la ci nekk murid murid